tepee teppiku na Kër Massar moom yàqu na xaw ma ku bëggoon dëkk Kër ma saar waaye bëggatoo kenn bëggatu fee dëkk du góor du jigéen du mag du ndaw ñëpp a ngi yenu seeni i bagage di gis nga kii fële la dëkk te Daaru Salaam geet waaye mi ngi nii doomam a ko indi fii dëkk bépp yàqu na man sama kër doom gi ma demoon fee ca ca ca Laalingeer gee kër koñ baa nga yàqoo yàqoo yàqoo yàq ba mënee su la koo wax nit ñi sonn nañu de ay waay waay ay waay président de la république wallu sinu wallu sinu ak ñi nga jox xaalis beeg koppar yi wallu sinu sonn nañu de Kër ma saar ku mën a wax ak ku mënta wax ñëpp a sonn ñëpp a dee ñëpp a taay marché bu ñuy dugga sax lekk sax mënoo am loo lekk da ngay toggi sombi maa ngay toggi laax doo gis foo jëndeem soow doo gis foo jëndee dara suukar si ne mes gisoo suukar déggoo suukar loolu métti na yal na nu yàlla taxaw waaye yal na nu yàlla taxawaay nit ñi sonn nañu sonn nañu sonn nañu waaye baal sama yaay maa ngi lay nuyu di la ziar bu ban ban ban message ngay lancé euh, autorité sénégalais yi ma mënu maa wax micro yaay bu waxal ne ah waa Kër Masada gis nga nit ñi yi daal war nañ ñoo dimbale ñu ngi nii daal ñu ngi nii daal gisuñ dara suukar bi seer na ndox maa ngi nii nag gadd amatuñu lu ñu jaay ñu ngi nii toog di faraatu waaw métti na trop daal mbënd mi kay ndox maa ngi nii gis nga ko nii ndax xam ne amuloo foo jaal marché be mënoo faa aw ndax ndox tey bi ma génne damaa waaru tey caaro yi fii yëpp kenn mënu fee aw waaw ndax ndox mu bari nit ñi déedéet kontaan déedéet kontaanuñu moom kontaanuñu moom waaw jërëjëf maman yàlla yàlla yokk sutura bi maanaam taataay bon taataay lii moom bon avant dara <laughs> mom lii moom wax dëgg fa yàlla lii moom lii dafa ñaaw parce que man li ma mënul comprendre euh, depuis euh, depuis gouvernement bi bees gouvernement Macky Sall bi fi toogee ba légui bon da ngay gis ne à chaque fois ay promesse lay teg quoi à chaque fois day génne ay bilan à chaque fois day génne ay projet à chaque fois day génne ay programme lu ne mu koy génne xam nga mais tey ni euh, bu la ñetti at desee xaw ma ñeenti at bo ba légui xam nga gisuñu dara lu avancer comprendre nga ak tay situation Kër Massar bon si Kër Massar moom bu ñu naree wax non fi lañuy ñuy quoi vraiment parce qu'avant avant tout euh, Macky Sall bon ñu ngi en 2021 fini fini. Je moom que wut une solution quoi xalaatee une que neneen lu nga xamante ne nit ñi nga parcelles 13 comprendre nga problème yi ñuy nekk Tata. si tata maanaam maanaam yi nga Tata ne que nekk ci koñ quoi Manam euh, bon expliquer mais en tout cas c'est compliqué quoi. comprendre parce que waaw waaw pour wax dëgg rek daal tax moom moom bon loolu dégg naa ko nii rek mais bon comme man dama xëy fajar dem maa ngi doog a wàcc mënu ma cee mënu ma cee atu quoi waaw bon yi moom bon pour man amul lu ma leen di wax quoi parce que amul lu tax parce que amul lu ñu njëriñ quoi amul lu ñu njëriñ ñoom seen jëm bopp seen kilifa yi sax amul nu ñu njëriñ parce que Sénégal li fi manqué fii nii du question de defar quoi question de yërmande la en réalité parce que bu fekkee defar rek non suma ma yéen ñi taxaw nii sax ay jeunes ngeen ku leen jox dëkk bi ngeen defar ko comprendre nga fi ma toog nii ci ginnaaw nii kii nii nii si boppam kii di jaay mango yi ak pomme yi nii boo ko joxoon dëkk bi mu defar ko kon ñun amuñu problème quoi ñi ñu jiite ñoo amul si ñun yërmande nañ nañ bàyyi loolu xel quoi du question de defar wala bañ ñàkk defar nit ki boo koy defaree day fekk nga yërëm ko quoi comprendre nga te nit nag boo ko yërëmul man si sama xalaat bu gàtt non mënoo ko defal quoi waaw jeunes yi moom li ma leen di conseil mooy ku si ne nga fas jom def que ne àdduna bi moom ah ala kulli aal faa nga def dara quoi euh, nga xam ne aussi tamit xam nga suñu borom moo lépp comprendre nga te aussi tamit xam nga lépp nga wékk ko suñu borom quoi. parce que dañoo bokk ci génération boo xamante ne nii xam nga dañoo tàmm di wekk suñu mbir si doomu aadama naan diw parce que dañuy jàpp ne xam nga bu ñu nee alal ñu ne àddina alal alal àddina alal fekk du loolu comprendre nga àddina valeur la quoi pour man te valeur bu ñu koy wax jeune la ñuy waxal quoi te jeune boobu noonu wax dëgg fa neex yàlla ñun la quoi te man am naa si yaakaar jeune Sénégal nit ñi di wax nag si wax naan ay xam Sénégal ñee ñee ñee ñee mooy ñi nga xamante ne ni ñooñu ay ngeen baal ma ci kàddu yi ay naafeex lañ comprendre di ñaan nag yàlla nañu yàlla doolu sutura mbir mi ñu nekk nii muy mbas mi yàlla na ko fi yàlla jële ci barke naa Mohamed ci barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ñaan yàlla nag euh, mu musal ñu mucal ñu aar ñu euh, musal ñëpp jële fi balaa bi Sarr moom métti métti rek gaan li fi am moom wax dëgg yàlla boo duggee ci marché Kër Massar bi gis la fa xew tey jii ñëw ci yeneen ko yi la fa xew nga xam ni metti na quoi waaw suñu njiit yi daal war nañ ñoo jàppale quoi wax dëgg yàlla war nañ ñu dimbali defar dëkk bi gaañeen def ay canalisation xam nga li ma loolu rek ñu war def pour dimbali askan wi du leneen leneen lu fi def tamit ay waxi leneen la rek mais lu dul ndox mi mu am ñu jëlee ko fi ah a gérer ay canal ak affaire yooyu noonu gaan mooy dimbali askan wi fi mu toll nii parce que fépp fépp tey gis nga booy yi doon yëngal fii tey gis nga ni mu demee ñoo ñëpp xam nga ne ku tëdd ci lal nit ñi nelaw yow maam yow mënoo nelaw sa kër fees dell ak ndox kooku boo xëyee da ngay joxé sa bakkan fi lu graw la lay wax ni tay mom ku ne gis na fi nim mu mom moom. mais mbir moomu noonu jàmmarloo bi ñu am ak takk der yow lan euh, nga koy gisee non non jàmmarloo bi moom jaru ko sax quoi man nañ dajé nak ñepp dajé bu ñëwé tak der xam lan mo leen naxari ñu jëm ko yeggee monsieur le maire quoi ñu wax li leen naxari ñu jëm leen ko jaayanteel mais tak der mënu ñu ci dara ay ay ay ay kat lañ rek yu liggéey ah. waaw mais autorité yi moom li ñu leen di lancé moom mooy ñu góorgóorlu rek ñu góorgóorlu rek jéem a dimbali askan wi Ngayane fépp la méttee affaire yi moom fépp la méttee fépp ndox mi moom Ngayane boo bëggee dégg-dëgg gisoo yi yëpp ay tiwo yu ñuy vidé la Ngayane muy génn fépp la méttee fépp la méttee fi mu toll nii nañ dimbali askan wi quoi xam nga li ma la moo solo yi ñuy def nii yëpp xaalis bi ñuy jël nii Ngayane di ko dugal fii di ko dugal fii mais nañ defar dëkk bi quoi war nañoo dépassé ñun ay taa Ngayane ay nit di génn sa kër fii da ngay ay saret di la romb yàpp seeni bagage mu leer la amuñu fuñu dëkk ay yeneen kër lañ leen abal wala ay bâtiment yeggul ñu fay dallu loolu du dëgg du yoon quoi nañ dimbali askan wi. Kër Massar ñaar embouteillage metti na ñet ñun daal fii daal sax année daal mooy lool sonn nañ trop ah ñu jàppale ñu rek état nañ jàppale rek jàppale ñu tuuti. waaw ci metti yow nan nga jàngatee lool ah xanaa metti rek metti moom mënut a weesu metti ndax boo dëgg yàlla ñun dañu mel ni dañoo raflé président. bon dafa melni dañu dañoo rafle président parce que neexu ba neexu mais li depuis depuis ay at mi ngi dal wa cité bi man ga sama kër bokku ci mais nak vraiment samay dëkkandoo yëpp ci lañ bok metti na lol lol lol ba ci kanam nit lu ci état bi gëna gëna mëna a gaaw rek bay bo mu gaaw ci ndax metti na franchement metti na metti na trop waaw. ñu gisoon daaw mu am fi waaw euh, autorité yi wax ren mu amane yow nan nga gisee. waaw moy dañu liggéeyul rek. dañoo liggéeyut parce que dañoo xaar ba affaire bi jege si ñuy doog ñëw di gas ak indi ay problème yu kenn xamut dañoo liggéeyut liggéeyuñu pour wax la dëgg moom moom gars yi moom liggéeyuñu waaw ndax moom fa dëgg yàlla lii moom bu doon tubaab bi ba heure bi kon instant yi jeex na waaw dañoo liggéeyut liggéey luñ la mën a wax waxuñu la liggéeyuñu rek liggéeyuñu waaw liggéeyuñu liggéey waaw bon non loolu moom du ko saafara moom loolu moom wax dëgg yàlla mais xale yi tamit xam nga xale xale rek la mën a doon

canal yi dañu war a woo ñi fi dëkk ñu xam yoon bi ñu jël canal yi tàllal ko ci diggu yoon bi mu kon na sar dem comprendre mais vraiment jël benn canal rek ko canal bi bañ koy defar boobu aw ma sa bi ma am mais ci laa ni canal bii même pas un un mètre yaatuwaay bi ah mënut a jàllale sa centralu euh, quartier Aliou Ndiaye bay jàllale Kër Massar ak li ko wër voilà loolu mooy problème bi mooy dañu war a xotti canal yi mu dugg ci koñ yi dugg ci mbedd yu yaatu yi comme sa nga xam ne bu tawee duñu doo sax gis ndox bu tay ci saa si ndox mi wacc dem yonam han ah, def ko ay canal ay canal yu maga maga mag a mag canal 5 m 4 m han yo lañu ñu war def wa sama dernier moy bi daal mooy daal vraiment na ci état bi jog na ci taxaw na ci jog na ci taxaw bu baakha baax ci nu mu gëna gaay ndax askan bi son nañ ah. bu ngeen duggan ci bi ndox mi di ngeen xam ne moom ñoom sonn nañ moom wax dëgg yàlla waaw yaakaar naa ne mënu ko fajj quoi xam affaire yi mom comme ñom mënu ñu ci jàpp ñun ñun suñu biir nañ jàppalante quoi comme ni yaa yaa ngi comprendre ñun ñoo ngi teg suñu pompe nii xamuñu sax lu xew foofu quoi vraiment maa ngi koy door a yëg nii si yow maa ngi door a yëg noonu jàmbaarloo ak policier ak affaire yooyu noonu maa ngi koy door a yëg mais ñun moom boobu ba léegi ñun ñoo ngi fii xam nga gaale yi ñoo ngi inondé ak affaire yooyu noonu ñoo ngi jàpp si pomp yeeg yooy noonu pour vide ndox bi quoi ñoom nag ñoo ngi leen di ñaan ñu si mënee ñëw jàpp ñu ñëw jàpp si mais gisuma ne jàmbaarloo policier yeeg yooyu noonu jar na ko daal nañ jéem a jàppale suñu bopp quoi comme ni ñu ko defee nii. waaw sonal nañu lool lool lool boo leen duggoon si kër yi sax ngeen koy xam ñun dañuy toog fii ba 3 heures du matin nekk si pompe yi nii ba 3 heures du matin affaire yooyu noonu mais ba léegi gars yi kenn ñëwagu fi taxaw la laa leen di lancé ah ñoom xam nañ xam nañ lañ leen war a def xam nañ lañ leen war a def parce que xam nañ li xew si dëkk bi gis nañ ni gars yi di dundee xam nga ngay toog xam nga sa moromu jullit bàyyi di ñii ñii di nelaw ñii nelawuñu. xam nga nga ci ba beurset metti na lol quoi metti na lol torop sax torop non mun ngeen dugg ni ci tol bi xol mun nañ tamit dem ba fof non ngeen xol ngeen xol ndox bi nu mu def keur ga affaire yoy non ah, Wow, ñun at bu jot dund ak depuis 1900 2013 depuis 2013 ba dund situation bi mooy tool bi moo fi nekk benn waaye bu ñuy wax Samb c'est un inspecteur des impôts et domaines moom moo moo ko moom soi-disant titre foncier daf ko bàyyi nii devanture bi daf ko loué ay nit quoi commercialement la ko def mais bàyyil ñu fii mu am benn kii boo xam ne benn genre réceptacle d'eau boo xam ne chaque année dama du ma wax sax chaque année dama naan année yëpp moom lay doon parce que ndox bi du fi jógee fi lay nekk constamment vingt vingt douze mois sur douze mois fi waaw léegi nag su ndox bi su su su su jëlee ndox ba ndox bi fees ba kii bi fees dëgg dëgg dafay ball si suuf suñu kër ça fait des années nag gis nga caro nu mel après ngeen filmer caro yi ngeen xool quoi caro yi léegi yëpp yàqu quoi parce que mënuñu defar parce que suñu defaree chaque année suñu defaree le même problème se répète alentour yi yëpp noonu lañ mel loolu mooy suñu problème loolu mooy jafe-jafe bi ñu am dëkk bi déclaration le maire ci moom laa njëkkee ko bin def nañ correspondance adresse ko ko pour éventuellement ñun suñu bopp ñun ah ñun suñu xaalisu bopp ñu defar ay benn canalisation bu bu bu xaw a précaire nii rek pour tout juste vider ndox mi ci canal central bi nekk ci tali bi mais il n'a même ñu répondre wuyu wuñu sax faale wuñu

moom moo waxoon dafay dafay defar assainissement pour Kër Massar mais ñun gisuñu dara ba léegi gisuñu dara jox nañu rendez-vous nañu dernier dernier délai bi le kii la fin juin fin juin gisuñu dara ñu ne bon mënul nekk fin juin fin juillet la fin juillet gisuñu dara léegi li ñu koy lancé mooy li mu digg woon na ko def war ca wax ja quoi loolu rek lañ ko wax. dëkk ci ndox métti la gis nga ndox maa ngi nii. dafa gën a yokk instant yi. te boobu ba léegi gisuñu kenn Omar Gueye ñëw na fi. ak euh, préfet waxoon naa leen ko bee passé mais gisaatuñu leen fii bu nekk unité 2 unité 3 unité li euh, ñu ko waxee unité 4 seen ndox mi mooy déversé fii parce que neen defoon nañ canalisation foofu mais foofu dara doxu fa léegi nag ndox yooyu moo daje moo ñëwaat fii unité 2 xam nga keroog ñun fi ñu ne ndox mi woon na tuuti mais mu ngi nii instant yi kenn mënul dem fenn waa alaaji paate fii la ñuy jaar mais mënatuñu jaar soo ñëwee ndox maa ngi la yegg si fii te loolu métti na fi mu nekk boobu lee mën ñu dem marché toggatuñu ba nit ñi lekk ba suur doxatuñu suñu soxla te mu ngi ni ndox maa ngi demul fenn pompe nañu ba sonn 24 heures sur 24 pompe du taxaw mais dinañ bassin bi dafa fees bassin mooy rejeté wàll yi ñoom foofu mu ne mootuñu dara fees nañ nit ñi ñu ngi jàll amuñu lu leen jàllale même vedette yi doon euh, sapeur pompier yi doon jàllale doon dem ndax fees amatuñ ci pexe pompier amatuñ ci pexe léegi gouvernement bi dañoo wollu xëy na ñoom ñoo ñu am pexe en tant que nguur war nga mën a def 24 heures ndox mi dem mais instant yi gisul kenn jaaxle nañu jaaxle ñëpp a jaaxle ñi ci kër yi ñu ngi jaaxle ñu yëg ci kaw terrasse yi mën nañu génn ci seen kër yi loo tam neexatul mais ne bokkuñ ci dëkk bi ci dëkk bi lañ bokk nag métti na torop torop torop képp kuy ne métti na sax dangay da ngay wax nii rek parce que dunduloo ko mm-hmm. soo ko dundee di nga xam métti bi man de mosuma ko woon dund mais at yi ma toxu si fii dama rëccu lu ma doon ñàkk fa eelu yaas sax fay lu yaa nekk ci jàmm moo gën nekk sa kër te amoo fa jàmm. Ah. ndax dañ naan feebar feebar waaye dëkk ci ndox mën nga fa jëlee tamit feebar yu man bi damaa crampe dama yaakaar danaa paralysé ndax ndox bi lañ doon toggee ñu ñii sama kër dafa feesoon jël ci ndox bi laa doon toggee ma dem ba sama cër benn cër bi bëgg a wàññeeku dama ndox mi yàgg fi moo la dañ ma mujjee génnee fi yóbbu ma fële mari sama benn kër sœur laa fa nekkee ba cinq mois laa déserté door a ñibbi si waat yaakaar ne ren dina tan ndax li ñu wax canalisation yi fekk tey lan ngay wax autorité Kër Massar. Kër Massar yi nañu dimbale man de xaw ma autorité Kër Massar parce que ma leen a gis mosuma leen a gis dañuy dégg autorité autorité mais duñ leen gis sax autorité seen bopp lañ fi nekk lañ ko mën a wax te population bi leen fi teg kon nañu wala population bi. nañu dimbale sonn nañu njaboot gi sonn nañu te mënul dox sa soxla te mënul def dara ndox maa ngi nii demul fenn. ok ñoo ko gisandoo. ñu lay jaajëfal ñu ñu ngi dund lu métti waaye yow lan mooy sa euh, dernier cadre rek. dernier cadre hmm. mooy daal nañu dimbali assainissement maa ngi koy waxaat canalisation nañu soxla te gouvernement bi mun na ko. 24 hmm. heures su bëggoon ndox mi dañ a dañ. Kër Massar ci population bi la bokk te département la hmm. nañu dimbale ngir yàlla sonn nañu wol nañu wollu ministre Omar Gueye na ñëw Macky Sall na génne mooy kat ñaata la ñu waxoon daaw 30 milliards 30 milliards yoo xam ne gisuñu dara. di séddale ay ceeb ak ay 200000 ñu soxla wuñu loolu nañu lijjanti ndox mi mu dem ñëpp am jàmm mais 100000 200000 fajul problème bi milliards yooyu nañ ko investir ñu gis njëriñ bi ñu ngi gis sa sa sa suñu doom yi ak suñu yooyu noonu di jàmmarloog euh, takk der yi ci mbedd mi mhm. est-ce loolu moo mën kii loolu de solution mhm. man du ma leen ko digal mhm. nañu ànd ak dal nga xamante ne nekkul ne euh, kii euh, ñoom dong la population bi yëpp la concerné su suñuy daanee ay pont pont bi njëriñ ñëpp la tamit nañu dimbale ñu wàcc tension bi violence bëgguñu ko mhm. mais l'essentiel nañu wax ak autorité yi ñu xam ni ñuy régler solution kii situation bi te solution ñoom am nañ ko en tant que nguur am nañ solution suñu bëggoon mu dañ tey dina dañ moo di daal wax dëgg yàlla peuple bi sonn nañ trop trop trop mhm. parce que sénégalais wax dëgg yàlla jàmbaar lañ mhm. jàmbaar nañ bëgg nañ liggéey mais fi ni boo xoolee fii ni ñin simple ñoo xam ne nii daanaka booy xool tabax yii nii yëpp simple ñoo xam ne dañoo débrouillé rek kii léegi nag li ci def gouvernement bi la maanaam bi ñuy wax fii na naan euh, canali ni ñu koy waxee ci canalisation waaw loolu problème gouvernement parce que bu ko mhm. defee nit ñi intégré ko nit ñi ñëw ñëpp di xool nangam nangam parce que loolu mooy problème Sénégal mhm. loolu mooy problème gouvernement surtout canalisation parce que lii nii nañ ko intégré kenn di leen gis naan di tàcc bu nangam na moo tax ñu am problème boobu mais loolu lii hinan liggéeyu gouvernement ba nañ ñu dimbalee ngir yàlla ñu def defal ñu suñu gën a débure nañ ba xam foo xam ne suñu roq dugg lii liggéeyu ko parce que xamuñ xamuñ paawa xamuñ doole pour mën koy defar lii pour affaire gouvernement la ngir yàlla nañ ñu dimbalee daaw ñëw nañ fii wax wax wax wax wax wax alors donc alors donc rek dara nit ñaa ngi bëgg dee mais ci ci ci ci réew mi lañ dëkk nañu dimbali defaral ñu suñu yoon suñu kii mën a dox suñu soxla waxuma ma dama jënd sax bu ñu seefee suñu suñu bakkan maanaam suñu bakkan bu fekkee ne jëlewuñ ci loolu daal man laa amul lu ma ci am te HLM gouvernement bi la te buñ ko jënd na canalisation viabilisée mais buñ ñëwee gisuñu dara gisa fii bu ñu ko jënd dañ ko jaloon ba suuf si fi la doon teex da ngay naan ne fii amul dex amul dara te ñoom ñoo ko moom ñoom ñoo ko remplé gisa doole bu ñu amoon ba jël ay ndaraan sotti ci suuf ba mu toll fii suñ ko defoon canalisation bi def te ñoom ñoo ñu ko jaay mhm. mais nguur kenn mënu xeex moom dañu mën a négocier rek waxtaan ak ñoom ñu dimbali mhm. ñu ngi leen di wollu nag ñu dimbali ñu ngir yàlla sonn nañu